salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet Mind 7 tey maa ngi fii biir amitié ak waa ñu dem ñu toog ci koo xamante ni moom wàllum communication bi yëpp moom lañ ko jagleel mu nekk euh, soxna Kalmi maa ngi lay ziar yaay woy. delloo ziar ah, ni fii loolu de dafa xaw a wéet wala lu mu demee yéen yéen tànn loolu noonu. waaw calme na moom. Hmm. <laughs> ok tey moom xam naa ne dinañ am contentement ak dinañ am tamit yeneen information yu bees par rapport ak. Newlab mhm. luy Newlab alors ñu dem plateforme la plateforme en ligne boo xamante ni c'est une billetterie et en même temps promotion d'événement donc coach, euh, ci ku am événement rek promoteur bu ci événement dugg ci site bi di nga mën a euh, événement que ce soit concert stand-up lu mu munti doon donc non seulement dañ koy fësal mais en plus de ça dañuy jaay des dañuy def tickets. d'accord Légui, ñu dem depuis quand lañ ko créé ñu dem ñu dem yàgg na nag ñu dem yàgg na lool lool sax ñu dem ñu koy créé depuis 2018 et l'idée même de ñu dem ça date d'avant parce que ki ki ko sos ki nekk ci ginnaaw kii euh, wam la woon nu mu tuddati encore euh, sujet la woon mémoire donc c'est du ñu dem nekkul air bi nga xamante ne instant bi ñëpp ngi ci air ticketing billetterie et cetera et que ñu dem bokk ci Mumbai. Mm-hmm. c'est bien avancé. Lui, il, y pensait en 2015, et c'était le sujet de son mémoire. Et euh, c'est en 2018 qu'on a commencé à matérialiser pour à faire Et depuis lors, 2018, bataille, Muniti, ligué pour qualité. Pour nous dire Sénégalais, le Hamantani, les Matsuk, donc moi, dans bataille, nous sommes lancés en 2022. Amna solo parce que qualité moom mooy li nga xamante ni liggéey yi quoi. te su fekkee ne plateforme boobu noonu dafa nekk loo xam dañ koy jaay est-ce que mën nañ xam ñaata lay jaar. alors pour événement boo xamante ne événement gratuit la tout est gratuit ci biir Weda parce que l'événement en tant que tel c'est sur des invitations et cetera et cetera donc amul dara lu promoteur bi wala ñi fa nar a ñëw a fay par contre si c'est un événement boo xamante ne c'est payant un concert ou quelque chose d'autre boobu ñu dem à 5 pour cent boo xamante ne moom récupère mais pas chez le promoteur Ce kuy fait ticket bi.

xam nañ bu baax lan lañ jaay ak te QR code c'est comme nañ ko ni mu tudd code la donc xam bu baax lan lay correspond. donc il y a ça comme valeur ajoutée en premier il y a le fait que tu peux avoir une visibilité meilleure visibilité parce qu'on fait ta promo on ne fait pas juste que vendre euh, tes, tes, tickets on fait ta promotion il y a un gain de temps je dirais parce que c'est rapide c'est un dugg rek gain d'argent je vais doon expliquer ça soo naroon de sa ticket fay 2000 francs livraison et je donne le 5%. 5% de salaire par exemple, pour pratiquer ça. C'est rien du tout. Mais Donc il y a ça, le fait qu'il n'y ait pas d'impression pour le promoteur par exemple. Parce que là, de plus en plus, l'impression que eu de coup, il y a qui n'y a pas de barre à guerre. Les poyok est installé, donc l'impression euh, ça va, c'est plus cher qu'avant. Euh, il y a le fait aussi que c'est adapté sur mobile ou PC euh, paiement en ligne, par de le bouger. Donc il y a ça, euh, design ticket numérique, euh, feedback, parce qu'à la fin de l'événement, pour notre il faut voir. Il y a un de rapport prochain de le D'accord. Et ça lui permet d'avoir des informations sur, euh, sur le public. loolu am na solo loolu am na solo parce que ba léegi day dugal benn xeetu marketing ci biir xam nga te loolu moom gars yi loolu la soxla mm. mais sama jaar gi nii dañuy bëgg a xam exactement su ma naree jaay ticket via ñu dem loolu nan lay demee parce que tamit Sénégal dugal xaalisam waa kay donc <laughs> soo ñu mën a expliquer ci loolu ñu xam. Euh, alors bi c'est le 77 145 60 60. tu avoir un adresse mail à travers ce mail, Et du coup, là, on va expliquer en détail parce que les événements sont très différents en fait. Parce que là, par exemple, tu de en ce qui est absolument très différent d'un concert. Le concept n'est pas le même, le nombre de personnes n'est pas le même. Ça, c'est des enfants, et ils parlent en euh, lequel il Et du coup, pour tout ça, on profile en fait l'offre

suñ annulé événement bi léegi fekk man jëndoon naa sama ticket ba pare biir ñu dem nan laay def damay perte. jamais Sénégalais ñu fonkee alal. waaw joobe wu ñu loolu. ok donc euh, c' est clair que on a une politique de remboursement boo xamante ni on a ñu euh, tudd ak suñu partenaire bi ñu ba Orange Money on a établi ça pour au cas où il y a annulation wala ñu reporté concert bi et du coup euh, on en parle avec le promoteur et tout ça et après on jette et on rembourse. Hmm. Le wóor na. indi fay. fay ok Sénégal ak xaalisam. mais est-ce que yéen da ngeen di waxtaan ak promoteur bi. à l'avance ci loolu. oui oui on en discute. ok c'est c'est établi dans le contrat on en discute une clé de net xamante ne ku nekk xam nga foofu d'accord est-ce que mën nañ utiliser ñu dem. ci loo xam ne événement Mais c'est gratuit. oui on peut utiliser ñu dem sur les événements gratuits et c'est gratuit pour le promoteur. d'accord su boobaa yéen ngeen laaj. amul dara ok gratuit pour ñëpp. man moom désormais événement bu may defati ñu dem laay jaar dégg ngeen pour muy laay en tout cas affaire bi am na solo. application bi am na solo te waa Mindset ñu ngi leen di kontaanee. ñu ñoo gën a kontaan ci ngeen espérons que dina collaborer waat ci yenn affaire yi. waaw am doole ne mooy jàppalante rek. pare nag nga wax ñu nar a liggéey ñu dem yëpp ñu dem abonné ci chaîne Mindset. culturelles, culturelle, showbiz, tout. Vous allez tous savoir tout ce qui se passe au Sénégal. N'oubliez pas aussi d'aller sur notre site web www.newyork.com ou de nous appeler au 77 145 60 60 wala nous Instagram Facebook et Twitter. en tout cas nous sommes déjà à de wax ni internet mindset et nous ngi ak waa ñu dem nekk application plateforme bu nga xamante ni peut-être ticketing la événementiel yéen ñi nga xam ne yéen ci yëpp mun ngeen collaborer ak ñoom x la seen fidèle serviteur seen homeboy maa ngi leen di di leen siyaar next time ci seen beneen émission showbiz that is in the place shout ma man Lodja ak équipe bu mindset bi yëpp